barki Serigne Béthio maa la ko wax de lu ne fàng kenn du ko jeex nag yaa ngi nii barki Serigne Béthio foo mënti xool nag ngay gis jëfi sëñ Béthio jaa ngi édition 2024 màggal 2024 fii ci Mbour Medina Salaam jëfi sëriñ Béthio ngi xool leen nag yi gileem yaa ngi ca ginnaaw waaye xari barki Serigne Béthio dara desul cey soxna Aïda Saliou Thioune des cey soxna Aïda Saliou Thioune maa la ko wax lu ne faa ngi kenn du ko jeex nag yaa ngi cey waa Mbour kontaan nañu barki Serigne Béthio soxna Aïda Saliou Thioune Serigne Béthio jëmmal na àdduna drapeau Serigne bi du laal suuf barki Serigne Béthio lay la nag yaa ngi waaye dama ni nag gile nag béjjën nag béjjën barki Serigne Béthio bii ba taliba waaw tali bii nga xamante ni talib Serigne Saliou la talib Serigne Saliou lañ ko tuddee waaye xoolal ma nag yi foo mënti xool béjjën ngay gis cay Serigne Bacco